بسم الإله الذي القرآن قد نزل من ابتداء وحرج عنده نزولا سبحان رب كريم جات لي كرما بأن ألاكم قرحانا هداه جل من كان aouzu billahi min asheytaan rajim bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah mbokk yi ñuy bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bi nu sante sunu borom bi tabaraka wa taala julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñi ngi ñaanal ki toogee jotaayu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg loolu mbàkk te ànd ak xam ngeen ne tey jii nag tey la alxames fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2017 ñi ngi fii ci liwaawul xam di ci mbaarum daaru xuddoos fekk fii nag ñi nga xam ne ñooy kuréel mooy bu naaf yi nga xam ne ñoo jiite ñoo lëkkale kuréel yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu xes de ci wàllu kuréel fii fi Touba ak lu ko wér ñi ngi taxaw ak jëwriñ ji nag sëriñ ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu di la ziara di la dalal jàmm ci ci ci bis bi nga xam ne yéen koy amal fii ci mbaarum daaru xuddoos fi ngeen toll ci ci événement bi aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balaax di balaax ñépp di santal Sëriñ Tuubaa bu baax waaye di sant sun boroom mi nu may nu fekkee bis bii nga xam ne ay weere ngeen ngi koy waaj te mu mel ne bis la boo xam ne benn la ci bis yi ndax bisu xasiida bu Tuubaa euh, ñu di ko defee fii ci mbaaram Liwaawul Hamdi ànd ko ak mboolem kuréel xasida yi ne ci biir Touba ak li wër bi ci Touba mu doon waajtaay woo xam ne nag ci gàttal niñ koy man di misaale mooy lu ëpp juróom-ñeenti at a ngi noo koy taxawu ndax atum 2008 ci la liggéey bi taxawoon nuy ñaanal bu baax Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké sunu borom yokk ay leeram ndax ci ay jamonoom 2007 lañ doon dox liggéey bi sotti am gi nag ci 2008 la jamono Cheikh matul Amin boo ba léegi it nuy ànd ak sunu Serigne bii fi nekk di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool di wér ko si si Cheikh Sidil Mokhtar saa bis bi jubee nu àndandoo boole suñu addi ak mbooloo mi seqal liggéey bi dem ci moom yëgal ko liggéey bi. ah mu doole nu ci ñaan ren sax dañoo wax ne bu ngeen demee ne ci bis ba na ngeen ma ci fasaale bu baax a baax ndax liggéey boo boobu ngeen nekk rek dëgg-dëgg lool rek mooy liggéey bi. kon nag bu buñ fi dellusiwaatee tey jii ànd ko ak sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mahmoudan waaye sëñ Amsatou Mbacke moom sëñ ñu bi mi nga xam ne ku tudd xasida tey tudd ko te ñu jàpp bis bii nga xam ne bis la boo xam ne wax dëgg yàlla bis bu am solo la ñu ngi leen ci sant bu baax te leen ci ñaanal sun borom yàgg leen fi lool te may leen wér waaye kuréel mooy bu naafex moo lëkkale kuréel yi ne ci Touba gépp saabu ñu ñuy lëkkaloo kenn ku ci ne yaa ngi ca gox ba nga nekk di di fa dund xasiida yi di fa def lala war waaye nag ñu jekki bu buñ demee tey ba mu amum at ñun ñëpp ñu dajaloowaat euh, xamante bi mën a mën a gën a yokku ànd bi mën a gën a yokku lépp ñu koy lëggéeyal Serigne Touba kon loolu lëggéeyal bu am solo boo xam ne ah mboolem ñi nga xam ne lañ ko àndal ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ndax waxtu wu nekk lu ko jéeg gën a jëme ca kanam ñu ngi ci waaye xam nga liggéey bu toll nii nga xam ne mbaar mi tey ni mu toll ci kanam tuuti boo fi ñëwee daanaka day egg ci dañ koy tëj ngir feesaay loolu xam ngeen ne liggéey bu am solo la war a la war a anal ci ay waajtaay moo tax ñu am ay commission yoo xam ne ñooy saytu liggéey bi wàllu dalal gan ñeeg wàllu sécurité bi waaye wàllu waañ wi nga xam ne ay berne yu bari dafay war da jógee loolu lépp ay waajtaal la yoo xam ne saa bis bu jógee kuréel yi ànd ko waaye ñu ànd ko kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi kenn ku ci nekk jël aw ñaqam di def ci bis bi ngir ñu xam ne liggéey bi que liggéey bu am solo te war nañoo taxaw it ndaw yi nga xamante ni bi ñoom ñoo koy def kon ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp rawatina nag barab bii ñu koy defee yaakaar naa ko xam histoire yoonu murit xam nga ne fii ñu defee bis bi tey fuñ ko war a defe la ndax daara xudóos gi ñu ngi nii jàkkaarloo ak barab bii nga xam ne mooy jàkka ji nga xam ne wax nañ ne Sëriñ Tuubaa fi la njëkk gis ak sallallahu alayhi wa sallam kon barab la boo xam ne bu nu dellusiwaatee fii dundal fi njàngam alxuraan dundal fi njàngam xasiida defe naa ne def nañ lu nu war te bis bi gàttanoon nañ ko ay ay téeméeri téeméeri kaamil balaa muy egsi bi ñu xëyee ba léegi it dongo yi ñu ngi ci biir di bàcc ay kaamil lu néew néew saa jeex ñetti téeméeri kaamil ak lu topp bis bi rek danañ ko jàng waxuma la nag lañ koy gattandoo kon loolu yaakaar naa liggéey la bu am solo boo xam ne ñëpp war nañ ci roy waaye ñëpp war nañoo ñaanal ñu fexe ba loolu am ñu gën koo man waaye ñu gën koy jekku bu baax a baax waaw naka ni at yëpp nag euh, bis bi mën nañoo tàmbali ci sëñ Abdou Hakim di ko ñaan suñu borom dolli leeram daana ko àndandoo ñun ci ak nekkam daana wax ne du mu ci yónni kenn maa fi teewal saa bopp sëñ ka kasaalika waaye si ba Basiir mi nga xam ne mooy porte parole yoon wi moom it daanañ ko àndandoo ak moom euh, te ñu ko ci séentu ragal nañ na xañ na balaa balaa balaa balaa guddi gee sori mën na am mu agsi ci ñu ngi ciy séentu ay kilo ku mel ne sëñ Mamor Mbacke moom sëñ Falilou incha allah moom it suñ ciy séentu ab teewaayam waaye sëñ Moussa Mbacke moom sëñ Mahmoudan kasaalika sëñ Amsatu Mbacke mi nga xam ne nag li euh, ma ko waxee léegi ci njëlbeen gi moom it bu soobee yàlla ci guddi gi dana ko àndandoo ak ñun wax guddi àjjuma gi tey fii la koy defee ci biir mbaar mi. kon yaakaar naa ne ay kilifa yu baree baree bare du ma ko mën a lim ñu ngi leen di séentu ci liggéey ah defe naa it lu am solo la loo xamante ne bii dana gën a encouragé ndaw yi nga xamante ne bii tey ñu ngi jóg euh, euh, jublu ci loolu euh, ngir ñu xam fuñ ci teg seen tànk sëñ Afee Ñang moom it incha allah ci guddi gi dana fi ñëw defal na waxtaan am solo thème mu jëme ko ci xasiida ak naka lañ ko war a mën a maanaam maanaam jàppe ndax xam ngeen ne jamono yëpp ndaw yi nga xam ne ñu ngi dëgmal xasiida yi aaje na ay borom xam-xam di gën di waxtaan ak ñoom ba ñu xam nekkin wi nga xam ne war nañ ko cee nekk kon loolu it allah ci guddi gi dana ci am. waaw daayira Mawahibou Nafih ah, sëñ Cheikh sëñ Cheikh Sidi Mokhtar moom dénk na leen liggéey bu am solo ndax magal tuubaa gii bu ñëwee ñu ngi ko ànd ak suñu saamu sëñ Mahmoudan mu dénk leen ñu war a def ñetti fan yoo xam ne euh, buñ nee gannaaw suba la màggal ak suba la màggal ak bisu màggal gi ñoo yëngu foofu ci mbaarum ayit mi ànd ko ak mag ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo daan nekk ñu dundal fa ñetti fan ci ci màggal gi. def naa liggéey boobu liggéey bu am solo ci maal gi sëriñ bi dénkaat leen ko ngir xam ne seen pas-pas ak taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy am waaye nu ànd ci ak suñu Samba ak sëñ Mahmoudane mi nga xam ne moom it mooy jëwriñ ni liggéey bi kon loolu bokk ci liggéey yi nga xam ne bu buñ ko tuddee xam ne sëñ bi moo ko santaane ak liggéey yi ñuy def ak yeneen yi nga xamante ni bii it mooy bu naax mi mi koy taxawu ci biir dëkk bi yaakaar naa buñ ko doon lim moom it lu yaatoo yaatu la ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla aha kay wax naa la ci njëlbeen na la bis bi saa bu jubee dañuy àndandoo ñun mbooloo mépp euh, dem ci suñu seex Sidil Muxtaar ci lu yàggut ëppul fukki fan ak juróom lañ ànd mbooloo mi sëq liggéey bépp dem fa dajale suñu addiyee dem jébal ko sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ bi noonu la duñ dajaloo rek di jàngi xasiida wala dajaloo rek luñ am defaat ko ci bis bi ci ay xeeti ñam ak yooyu waaye dañuy dajale suñu addiyee dem jëbal ko sëriñ bi mooy maay bu naafeex te lu jiisu loolu it kenn ku ne daara ja nga nekk yaa ngi fa dajale sa addiyee Euh, di ko am ko jébal ki fi nekkal sëñ Tuubaa waaye de tutee ñun ñu dajalawaat nag dañuy dajalawaat jël suñu addiya di ko jébal sëriñ bi kon noonu noonu lañ ko baaxoo di def. waaw xanaa di sant bu baax a baax nag ndax jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne euh, lu yaatal lu yaatal euh, yoon wi la. waaye jàpp na ci li nga xamante ne bii it lu ci luy luy gën a xeer ndaw yi la rawatina nag yëngu yi ngeen yëngu ci ci ci wet gi ngeen nekkee ñu ngi leen ci sant bu baax baax ndax bis biir gis nañ wàccuwaay yu ngeen ko jox ndax benn presse du des bu jotee kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax maanaam nag euh, mooy bu naafex moom amul xejj ak seen du ma nangu ci loole nga wax it pour maanaam ne duñ fi teew ñoom ñëpp fiy teew dañ fiy teew ndax sëñ Xaadim Géey yaakaar naa mënuñoo tudd tey njàngam aw te duñ ko tudd te bis bii da ko àndoo ñoom at mu nekk bu ko fekkee day ñëw bu ñëwee barkeelu ci defe na ak barkeelu mit dana yóbbaale lu ëpp ci mooy bu naafe bi nga xam ne moo lëkkale jànkati aw yi ndax at mu nekkee dañ leen ciy jox ay bataaxel yoo xam ne dañ leen ciy invité ñoom ni ñëw di ko àndandoo ak ñun waaye du am ci moom ñi fi jàng ay ci jànge aw bari na man seexu naa mbaj ñu bari man bu ma ko doon lim lim bu yaaru la ndax ñoom it dañoo àndandoo ñoom liggéey bi kon mooy bu naafe moom njànguma rajas mi ñi koy def am nañ ay kuréel njàngum drus mi am na ay kuréel yu koy def njàngum aw mi am na ñu koy def waaye ñëpp lëkkaloowaat nañ ci biir mooy bu naafex bi ñu seqaat kon amul xej ak mhm. dëgg la. waaw kàddu yu mujj yi daal mooy di bëccëg bi moom jeex na ñu ngi dëgg dëgmal guddi gi. Euh, li ñu fi euh, def lépp yàlla bu mu neen mbool li ñu fi jàng ci xasiida ak eh, istixfaar yoo xam ne ñu fi nekk ñëpp waaye dott ko ay xéewalit eh, ci mboolem ñi nekk ba sàq ñëpp daal ndax liñ ciy def lépp di wax di yàlla nu ngi leen ci ñaanal bu baax waaye di ci sant bu baax a baax nag rawatina nag ñii nga xam ne lañ ngi leen di sant bu baax a baax ndax kenn ko am ci taxawaay. jërëjëf Serigne Cheikh Dieng ñu ngi lay sant la gërëm di la ñaanal sunu borom defal la قال قائلا والدي عابدا ذاكرا وانظر فبكليتي بلا كفران ابدا عملت ورديت منه الحمد لله بل اكثر لا يعلمون يخرج يؤمنون عملت ذكرا جاءني من ربي والى الجنان قادني من ربي بركه القران اهلت بيني وبين كل دهر غائني لم يلغني ما يدخل النيران ولا ليأ شفاء توفيق من ليس له كفا أحد لخير نعيس قبل من جعل Amém. اليقين أنه معين والتوكل هداية عند المنعين علي من لا بنزر فيه بغير العدا واعترافي لا يتوجه قدر الأبدا لدربي والقد ربي أبدا مد اليسر النصر في الخلال من ترك القرآن sheytaan rajim bismillah inna wali yàlla wa ma tawfiq illa billah jërë ngeen jëfati ci ànd beeka istiqaama mbokk yi koy bàyyi xel ñu ngi leen nuyu baax di leen sant di leen gëm ba léegi ñu ngi fii ci liwaawul amri ci mbaram dara xudóos ci bis bi nga xam ne kuréel mawaahibul naafix fi ma dax nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xasana demone moo leen jox ndigal ci bis bi nga xam ne ñu ngi ko def fii ci mbaarum daarul xudóos tey ji waaleykum salaam wa mën nañu xam euh, ban ndombay tànk nga nga nga ràngoo ci kuréel Mouwahiboul Nafih. waaw kuréelu Mouwahiboul Nafih mm, ñoo ci nekk yore wàllu administration bi. ndax administration mën nga ju tënkal ci kàllaam ak wolof. waaw mooy bànqaas bi séddale liggéey bi bi nga xam ne mooy yore lépp lu jëm ci liy séddale liggéey bi maanaam mboolem commission yi nekk ci biir moom moo koy décentralisé moo koy yore ak di superviser liggéey bi. naka la liggéey bi doxee ci mooy bu naaf yi. waaye liggéey bi ni muy doxee mooy ni ko xamee rek mboolem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci biir Touba at mu nekk dañoo baaxoo daje su ko dajee boole seen bopp. amal bés boo xam ne dañ koy tuddee bisu xasida bi bisu xasida boobu Touba nag ren jii ñu ko tàmbale woon 2008 ren jii yaakaar naa mooy juróom-ñeenteel bi at ci jamonoy sëñ Alhaji Lamine Mouhamadou Lamine Baara yàlla def na nag booba ak léegi at mu nekk ñu koy amal ba ren jii ñu jàppaat ko tey jii ren jii ci 2017 bi ñu ko def ci turu ki fi nekkal Serigne Touba muy Sidi Mokhtar ak njabootu Sëñ Touba gépp ñu baaxoon nag niñ ko defee mooy. mboolem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi te aju ci Mawaahibu Naafi suñu ndajee ñu seet lim bi ni mu toll ñu tàmbali alxames 8 bu jotee ñu tàmbali njàng mi yendoo ko fanaane ko ba àjjuma ci fajar dugal nag ci biir ay commission yoo xam ne banqaas yoo xam ne ñoo yore liggéey bi muy ay banqaas yu bari banqaas bu mel ne waa commission des finances ak lu mel ne waa commission accueil ak sécurité ak restauration ak yi ci nekk ñooñu nag ñëpp dañuy nekk ci turu jëwriñ ji waaye administration bi moo koy superviser ak lu mel ne communication noonu la noonu la liggéey bi taxawee noonu daal lañ lañ formé liggéey bi noonu lañ ko noonu lañ ko dañ ko taxawalee waaw waaw waaw. Euh, euh, yaa ngi fàttali nga fàttali ñaata at a ngi kuréel gi di ko def fii ci mbaarum Darou Khoudoss. waaw mooy ni ma ko waxee rek ñu ngi ko tàmbalee woon ci yi 2008 2008 ci def ko ci ndigalul sëriñ Alhaji Mouhamadou Lamine Baara booba ak léegi. dakkaluñ ko benn yoon ba ren ji 2007 nga xam ne juróom-ñeenti at la kon nañ jàppale juróom-ñeenti at ñi ngi amal bisu xasida Touba bi muy bés bu yaatu nag ndax nañ ko organisé daa xaw a wuute ak yeneen kuréel yi niñ leen moom dañ ko organisé ngir mboolem kuréel yi nekk Touba defuñu ko mu yëfi quartier ñu ko mu yëfi koñ dañ koo def mu yor bànqaasu Touba yëpp loolu nag niñ koy mën a taxawale mooy comme mbaar mi lañ gis ne moo gën a yaatu moo gën a mën a mbooloo moo gën a organisé wu tamit looloo sabab sax ñu koy defar ñu koy fii ci Daaru Xudóos moon naa dem sax bañ koy def ci yeneen quartier yu gën a yaatu waaye nag fi Daaru Xudóos moom dafa fekk ne mbaar mi bénéfice na ci ndax dina li nga bëgg a programme yëpp dinañ ko mën a programme fii ci ay jataay bi ni mu gën a yaatoo ak ni mu gën a baaxee noonu daal lañ ko tëralee euh, di ci sàkku mboolem kuréel yëpp ñu gën cee ak mboolem ñi nga xam ne xës yi da leen ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne presse bi jàpp ci lu mel ne istixaama nga xam ne boobu ba léegi mi ko ànd ak ñun sëñ Moustapha Ndiaye su jóg ci ànd ak ñun ca tàmbali ba ba nëgëne da daan ñëw di yendoog ñun fanaan ak ñun ba bët set xëy daa dem léegi ba gone yi mën koo téyel liggéey bi rek moo tax ñu ñëw waaye moom moo daan teewal boppam kon ñoo koy sant ci turu kuréel bi ci turu mbooloo mi nga xam ne mooy waaye bu naaf yi ak turu mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan istixaama di ci Sëñ Touba teg ci loxo ba fi mu war a àgg yëpp mu àgg fa ndax xam nañ ne kuréel la boo xam ne moom te mbooloo la moo xam dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa rek ci communication te communication dafa am solo ci liggéey bi ndax fii nii buñ fi taxawee ëpp ci li tax mbooloo mi ñëw fii communication moo tax te kon communication bi amul kon du ñëw kon moom bokk na ci ñuy wisaare communication bi ñu koy ñaanal mu gën a yaatu bu baax a baax a baax. gis nañu ne bis bi da ngeen ci jox communication day bu mag sax. waaw waaw communication daf cee ñàkk ndax ginnaaw mbooloo yi dañoo sore fenn fu nekk barab bu nekk kenn nekk Ah, léegi li xew léegi muy technologie bi muy internet bi muy a presse bi ak information yi loolu yëpp dañ leen lëkkale boole leen invité leen ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ñoom it wax dëgg yàlla ñëw nañ ma ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo leen sant baax di leen ci gërëm. xam naa ne temps yombul ñu ngi lay sant baax di la gërëm. jërëjëf ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm di di ko déet. jërëjëf kooku mooy sëriñ bi Diané ñu ngi sant baax di ko gërëm di ko ñaanal Serigne wa defal ko jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wajjadu lillahi hamdan wa karamani bil musafa wa fi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon mbokk yi ñu jëwaat rek ci liggéey bi euh, waaye li nga xam ne fas nañ leen koo indil ci li nga xam ne tukkee na ci journée xasida bi nga xam ne moom la ñu def Touba te kuréelu Mawaahibu bi nga xam ne moom moo lëkkale euh, mboolem kuréelu xasida xasaayid yu nekk Touba yëpp euh, ñu ngi fii nag comme ni ko defee soo ba léegi kon dañuy yox suñu fàllu mu indi jox mu indil ñu lenn ci ay kaddu ci wàccaay yi nga xam ne communication waajal na ko ci bis bi ak maanaam fuñ ci toll kon suñu fàllu dañ lay jox kaddu gi rek bisimilah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim di ñaanal xalifatul am li daayatul muridin ak Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak mboolem wàgg Serigne Touba yëpp ak mboolem talibe yëpp Serigne Mamour ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax na ne bu ñu ko tàmbalee ci yonent bi loolu yi nga xam ne mënut di communication man nan ne mooy ak woote te kenn ku ne xam ne ne mënoo tàmbali mbir te woote woo communication mooy li ñu ko mën a xamee ne mooy ci euh, yàlla suñu borom ñu digal mbir mépp loo looy def dañ koy woote muy lu baax muy jamaa dañ ne al jamaatu rahma mbooloo mooy doole yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne suñu borom daf ko sàkk bu ñu ko indee ngir woo ngir woo gaañi nga woote nga woo leen ki lislaam ñu mën a ànd yow ci li nga bëgg Euh, Seyid euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñi nga xam ne yaakaar bi nga demee ba nga xam ne mi ngi ci njàngum alxuraan mi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo xamal ne ko nga woote nga yar sa gaañ yi te bàyyi njàngalem kese mi kon ñun bu nu waxee bisub xasida rek xel yëpp dem Serigne Touba Xaadimu Rasuul communication daa doon loo xam ne mooy jiitu ci ab liggéey comme ni ma ko misaale ci ñu baax ñu ñu fi jaar ndax bisub xasida soo koy wootee da ngaa war a dem ci mbokki taalibe yi kenn ku nekk nga woo ko ba pare mbir mënoo koo def te woote woo li ko waral nag mooy communication dañoo jóg ngir liggéey Serigne Touba ànd ko mbooloo mépp képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallaah rek ñu ngi lay boole ci liggéey Serigne Touba bii. li li waral loolu nag maanaam mooy bisu xasida bi ñu koy amal dañoo fas yéene jóg fépp doomu aadama man di nekk muy jullit danañ la ko yëgal bis bi. tàmbaliment bi nag ci ay kuréel la la tàmbalee woon ginnaaw bu ñu ci amee ndigal ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi yoo xam ne kenn ku ne xam ne ne ku leen xam rek xam ne ki liggéey Serigne Touba ku ci mel ne Serigne Amsatou Mbacké Sow ba nga xam ne liggéey boobu ci ci ci ci jëmmam la tàmbalee. Serigne Moustapha Mahmoudane mi nga xamante moo ko fi nekkal ñu teg ci jëwriñ ji nga xam ne mooy Serigne Cheikh nga xam ne moo gis liggéey bi. wàllu communication nga xam ne dañ ñoo jël jiital ñu ci ñu ànd ko mbokk talibé ndax kenn ku ne xam ne lu kenn mën ñaar ko dax kon ñun dañ cee dañoo tegu ci kaw rek ndax kenn ku ne xam ne jiite mënut a ñàkk waaye dañ cee néew lool ñu ñu teg njiit waaye communication dañoo jóg ginnaaw bi ñu jógee ci kuréel yi dem bi ñu jógee ci kilifa yi dem ci kuréel yi képp kuy yëkkati xasida al ak alxuraan karim ak ñëpp rek dañu leen cee boole wala bu dikkuwaat ñëwaat ñi nga xam ne yàlla dogal na mun ñoo ñàkk bokkul liggéey mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu internet bi di yëgle ndax biñ commencé liggéey bi ñu ko tàmbalee ba léegi bi biñ jaaree fi ñu ko war a jaar ci kilifa yi ak mbokki teel bi ñu ko war a seexal muy kuréel yeeg yëpp dañoo daal di eh, topp jéego yooyu ñi nga xam ne dañoo yor ay site site internet moo xam ay télévision la moo xam ay rajo la fenn fu ki nekk biñ tollee ci jamono yooyu yëgal nañ ko yëgal nañ leen ko émission yi ñu ci waroon def yëpp yàlla dogal na àggal nañ ko dem nañ ci rajo yi waroon dem yëpp dafa émission di leen gërëm bu baax a baax a baax ba ci site nga xam ne ñoom lañ àndal tey gi ci liggéey liggéey bi ba léegi ci subaak léegi ñoo ngi yendoo ñoom di ki nekk xëy na mën ñu tudd ay tur ndax buñ tuddee dañuy juum waaye mën nañ ne ñi teew bari bari na trop trop waaw télévision yi tim am na ñoo xam ne tey am na ñi ne teew ba pare mën na gi day tàggo tàmbali rek ndax saa su ne dañ ko bëgg a ànd ak mbokki tali bi yëpp rek ngir liggéey Serigne Touba am nañ ci mbégte moo xam ne daal mën nañ ne tàmbal tàmbal nañ fépp foo xam ne war nañ faa jaar daal ñu ngi fay jaar fi mu nekk nii liggéey bi xaajagut te incha allah rabbi li ñu gën di dem rek liggéey bi di gën di yaatu liggéey bi di gën di kon ñoo ngi ñoo ngi yaatal ñëpp ñun daal bàyyiwuñ kenn ubbil nañ ñëpp suñuy bunt ubbil nañ ñëpp suñuy bunt di jégalu bu baax nag xam naa kaddu gi moo xaw a moo moom lañ xaw a tëlee ba tax waaye nag liggéey bi Serigne Touba moom saa boo ki nekkee rek da ngay da ngay jéem rek ndax euh, euh, danañ ci yokk benn kàddu bu yéeme mooy boo xam ne am murid mas na ñëw sëriñ bi sëriñ Saalihu Mbàkke di ko wax ne ko ñaanal ma am matériel moo ma liggéeyee daf ko wax ne ko ñaanal sëriñ Tuubaa liggéey loola loolu liggéey loola nga am matériel loolu liggéey sëriñ Tuubaa ku mu liggéey jox matériel kon nag wax yii wax jàpp na ne sëriñ Tuubaa mu ngi liggéey loo ba tax saa suñu waxee rek kon jàpp na ne moo ñuy may kàddu goo xam ne danañ ko àggale waaye nag lépp loo xam ne rek daf ciy dëng rek ñu jàpp ne ñun doomu aadama rek lañ suñu xel daa matut lu gi manqué rek ñun la waaw di sant mbokk tali bi bu baax a baax li jub di sant ko suñu borom tabaaraka wa taala jërë ngeen jëf mbokk tali bi ليث نذير لذي اعتداء مشكل شاك بشر لباك مزغ بندائك أكرمتني إكرام من ما سبهل وكل ما أردت منك فهل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريمه تبشيرا وتكريما أعطيتني ما القلب أنت كلما مدى من الدر مع الرسول ما كابلني من ماله أن أهد بما لغيري ساغ كل من جهد أكرمني